bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa la ñuy nuyoo ñëpp di siyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp sëriñ bi yónni nooy kàddu de wax ne mi ngi nuyu bokki taalibe yi di di leen feddalil ko le rek sëriñ Tuubaa gi mu saq ak ñëpp sëriñ bi wax ne xam na ne fi mu nekk day namm na lool taalibe yi itam namm nañ ko lool te ànd ak ñoom liggéey sëriñ Tuubaa bi rek mooy yitteem xanaa nin ko bokk xamandoo lii fi suñ boroom jaarale tam nekk fi daaw ba ñu di ko wooyee mbas mi muy wér jàngoro ji jaar jàngoro ji nag daa ba mu fi egsee jël na ci ay matuwaay yi mu ci war a jël yëpp ca saayir ak ci baatin kon nag xam na ne ca saasa la ci daa def ñaar téeméeri million muy saayir si waxoon itam ne ñi yor wàllu kër docteur yi di saytu wér wér doomu aadama yi li ñuy santaane nañ koy sàmmonte ak moom toolu weesuwul ni ko waxee takk tàmbalee ko ci takk masque yi gis ñëpp mu di ko takk tàmbalee ko ci raxas loxo yi ñu gis ñëpp mu di ko def ba ci dandante bi loolu taxoon na daaw ba mbas mi ñëwee màggal yëpp lu mel ne màggalu Kazu Rajab màggalu daal monti ñu soppi woon defin wa wàññi xumbin wa ba ñu àggee ci koor ga ñu wàññi woon defin wa soppi ko nañ daan joxe ndogu ñu soppi ko lépp di bàyyi jàngoro ji xel bañ yàgg ci kori ba ñuy dem dem dem ba mu yàgg mel na jàngoro ji daaw am woyof am ci xew-xew yoo xam ne ba mu xewee mais yowaatu nañu as lëf ci xaw koo yokk tuuti ba ñu weesoo loolu ñu demaat demaat ba weesu Magal Tuubaa weesu gàmmo mel na jàngoro ji daa yéegaat ah sëñ mi ne kon wattandikuwaat jotaat na nañ ko defoon daaw ba muy door a song te amoon doole mattandikuwaat gi nag kon mooy gën a soññewaat ci liñ ci war a def ci mu li ñuy wax mesures barrières yi te sëñ bi waxal waxoon na ci wax la woon na ci saabas jamono yee ci ginnaaw it mu wax la woon mi kàddu yoo xam ne daa waxoon ne daayira yi ak siyaare yi nañ ko taxawal ba mbas mi wàccaat ne weeru janvier wi amoon na yéene nañ mujjandiku bu weeru tolloo ci dee bu fekkee mu wàcc ñu tàmbaliwaat yàlla mi dogal nag moo dogal bi weeru temps bi dee février bi dugg mu mel ni day gën di am doole rek di gën a diis sëriñ bi boobu ba léegi ñu bari ñu ngi yegg seeni addiya war ko jébbale kilifa yu bari ñu ngi bëgg ñëw ci moom baa ngi ci kër yu mag yoo xam ne ña ko jiite woon dañoo wàcc ne doo toog ci kër yi war a egsi ci moom te loolee boobu ba léegi jàppandiwut sëñ bi nag di cee wax na da ciy jégalu mbokki taalibe yi te ñu xam ne yéeneem jëpp mooy ànd ak ñoom liggéey bi xanaa rek kon da cee da koy booleeg ak ñaan li woyewaat woyefaat bañ mën koo àndewaat nañ ko daan ànde mu ne woon nag kon ginnaaw dafa amoon yéene weeru janvier bu dee ñu tàmbali te bi mu dee mbas mi mu mel ne lim yi day yokku mu ne kon nañ muñandikuwaat baat boobu la ko wax nañ muñandikuwaat ab as ndiir tey ñaan mu gën a woyof saa su woyofee ñu gën a yolomal ba gisee gi mën a am waaye ginnaaw bi bi weeru janvier bi ñu dugg février bi daal gis na ne lim yi day yokk waxtu bu moo tax mu bëgg nag conseillers yi itam ñu bañ koo gaawtoo te mu ñu ndikuwaat ba too ba mbas mi yor woyof te ñaan mi dem ba mu jeex yi ni muy yéegi fan yi ñu di ko yéeg déggandoo te moom day waxal boppam ne jàmmi bindeef yi rek jàmmi taalibe yi rek moo ko ñor lii muy wax nañ mu jëndikoo li muy takk lépp yërëm bindeef yi ak bëggal leen jàmm ak bañ rek luy law ci biir ta bindeef yi moo tax luñ ne mooy tax du law rek mu ne na kon ne la nañ leen ci fekk boole ginnaaw bu ñu jiitalee ñaan gi ba noppi xanaa kay bi doon wax rek lu fi jaar loo xam ne da koy ñaan taalibe yi taalibe yi xam na ne dañ ko may sax ndax lu baax loo xam ne ñëpp koy rafetlu mel na sëñ Basiru Anta Ñang mi jiite njabootu maam Cerno Birahim jamono yi sëñ bi doon rafetlu ci la tolloog sëñ Abbas di wàcc ba bi ñaanee nañ ko may nag sëñ Basiru Anta Ñang boobu ba léegi mu toog moom njabootu borom daaru gépp sëñ Basiru Anta Ñang bis bu mu yónnee ñaan sëñ bi na ba sañoon daal yëfi boroom daal yi mu yor dana ko jébbal sëriñ Tuuba ndax ñëpp a ngi egsi ci moom te moom mën na ko egsi ci bi xaw naa di ci moom ñaan na ko nag weeru yàlla du teg ndax bu sam wi door teru ba bisub na ba tënga ni mu di ko ñaan sëñ bi ni mu wax ñëpp mu di ko wax nañ teñoon ñoo gëne ko tuuti rek ndax yëfi woyof ndax jàmm rek am solo donte xam ne siyaar bi du xañ a jàmm bi ku yàggee nag sëñ Bass di ko sàkku nag sëñ bi ne ma ginnaaw sëñ Bass boobu ba léegi mi ngi koy te liggéey bu toll noonu muy kër maam Thierno Birahim ci kër sëñ Touba mu ne da koo bëgg a jébbale da koo bëgg a jokkale sëñ bi loolu sëñatu ko te kon nañ ko may mu ñëw jébbale loolu waaye ci biir bi ko ko sëñ bi may jébbale gi ci la sëñ bi waxaale ne jébbale ba noppi nag nañ wéyal sant santaane gi mu santaane ci néggandiku waat ab diir ba yëf dal moo wax ne bisimilah leeralug sëñ bas gii rek la fi doon jaarale ndax bu waxee lii ñu daal di gis ne sëñ bas ñëw ne day duñ te leeraluñ lu tax mën naa jaaxal keneen wala ñeneen jàpp ne kon daa far ubbi wala ñu jàpp ne am na ñu mën a ñëw ba tey waxtu ne ñuy bàggante ñëw duñ ko gis loolu lay bañ xam ne daal sëñ moom weeru yàlla mu di ko borom daaru gépp mu ne ko woon kon na ànd ak ñu néew ñëw jébbale loolu te te te teñ wéyal déclaration bi ñëpp dégg ko ne nañ mu ñëndikuwaat siyaar yi ba ba jamono soppiku ba mu dal ñu ko wéyal loolu la ma waxoon ne kon naa ko waxaat ñu waroon a ñëw jébbale si ay liggéey war a siyaare si ak kilifa yi war a jokk ci ak ko rek mu gën di ñaan boromam ci barkeb Sëriñ Tuubaa mu jeex bañ mën a wéyal liggéey bi waaye fan yi ñu may ñu malaat ko kooku képp koo xam ne dégg na kàddu yi na ko jottali moroomam na sëriñ bi nee na nañ ko mayaat ab diir néew ma nag ba nangami fan néew ma it ba waxtu sangam dafa ne nañ muñalaat ab diir rek nu muñal jàngoro ji mu woyof kon xam na ne mi ngi ñaan boroom te xam ne li mu ñaan boroom boroom dana ko may ci barke bi ba Tuuba waaye nag kon nun buñ ko yàkkamte nañ ko déglu moom rek moom lu ci war dana ko def lu ci gën dana ko wax te nin ko bëggee moonu gën a bëgg yéen yor seen i addiya ba ko andi moom it mu dëgg ma liggée bi sëñ Tuubaa bi bu sañoon kay ñu andi addiya ma def ko ci liggéey bi liggéey ba ñu taxaw te liggéey bi ñaanul yàlla mu taxaw te du taxaw sax waaye nag nan ko fekk ci lii mu wax lii andi jàmm ndax jàmm rek la bëgg jàmm yi ñëpp la bëgg yërmande ñëpp la am kaaraange ñëpp la bëgg ndax képp ku nekk ci moom yaakaar sa sa kaaraange gannaaw lu waaye duy metti nit mu bëgg ñëw ne bu ko sëñ bi ñaanalee gëm na ne dana tàggoog loola kon sëñ bi itam wattandiku ci jaamu yàlla bokk moo tax bëgg ñu wattandiku kon nag ku dégg kàddu ko jot li mu sa morom sëñ ne nañ ko muñalaat nañ mu nañ muñalaat jamono ab diir ba lii woyof mu tàmbaliwaat liggéey bi ànd ko yéen nam ko àndee woon ak moom mi ngi ñaan suñu borom jëlee fi mbas mi ci barke bi sëñ Touba noonu taalibe it noo ngi koy ñaanal mu nekk fi lii jaax nu wéyal ànd ak moom liggéey bi di ko jébal suñu liggéey bi sunu liggéey mu dina ko defal ci liggéey bi sëñ Touba ba mu am ndam nu ànd ak moom ndam la nu ànd moom ci lépp daje tawfeex Sëriñ Tuubaa ci lépp wax dëgg yooyu la ñu yónnee woon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa